الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي جعل العلم والعمل وسيلة السعادة والصلاة والسلام على من لا يلحقه عالم ولا عابد في العلم والعبادة سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته من كل من تعبد وتعلمه ama baad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu dellusi ci seen émission thème de la semaine seen mbokk Massamba sill di taalibe borom xawdul mawruud war leen waxtaanal ci lenn ci tontu yi nga xam ne laaj yi ñu daan laaj Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim mu di ca tontu la ak waxi borom xam-xam yi war borom yi tasawuf yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa daana sukkandiku ci ñoom ci seeni wax di ko indi ngir sew-sew yu ca nekk ginnaaw loolu doon bind lettre benn taalibeem ne ko ayuhal axu naasixu adib wal muridu saadixu labib yow mbokk mu mi nga xam ne aji laabire nga di ko ami teggin di murit saadix bu yew lool laaj nga ma Mobil bindal la ab ndénkaan ab wasiya boo xam ne dana la amal njariñ bi ma laajee loolu ma tontu la ngir sàkku ngërëmul sunu borom subhanahu wa taala ak xemmeem yooli ki nga xam ne moo xam le diine ji mu yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne ko yow mbokk mi nanga ragal yàlla sunu borom subhaanahu wa mu tedd mi te xeeñtu sunna si yonenteem bu tedd bi ni ko dëgg-dëgg ragal yàlla mooy taxaw ci ndigali borom bi subhaanahu wa taala ak i tereem maanaa jëfe ndigal bàyyi tere ci kenn bañ laa gis maanaam borom bi subhaanahu bañ laa gis ci lu muy tere te lépp lum la digal nga taxaw ci jëfe ko kem nam la ko digale ndaxte sayidu taifati suufiya sangub ahlu tasawuf ñu di ko wax junaydu imaam junaydi رضي الله تعالى عنه دانوخ أي صحابة منذن لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي فإن رأيتموه ممتثلا لجميع الأوامر الإلهية مجتنبا لجميع المناهي faataqiduuhu waqtaduu bihi wa in raaytumuuhu yaxillu bil awaamiri fala yajtanibil manaahiya fajtanibuuhu intaha junay wax ay saxaabaam naan leen ay àndandoom naan leen bu ngeen gisee góor nit muy ferankulaay ci kaw ngelaw li ci kaw jaww ji bu leen ko coroy lu may dangeen a gis jëfam mu ne mu taxaw ci ndigalil borom bi subhaanahu wa taala ak i tereem bu ngeen ko gisee mu topp ndigali yàlla yi moytandiku ay tereem na ngeen koo gëm na ngeen xam ne la def dug jay du istidraaj waaye nitug yàlla la ngeen ko gëm te na ngeen ko roy ngeen ko topp bu ngeen ko gisee mu mooy ndigali yàlla yi bàyyi tere maanaam moy ndigali yàlla yi ndigali yàlla du ko jëfe te du ba tere yi du ko bàyyi nee na na ngeen ko moytandiku na ngeen ko moytandiku ak njabar la yor wala ak jay goo xam ne sunu borom ma koy jay du dara moo tax sëñ Tuubaa Seexul Xadiim ne maa ngi lay dénk yow taalibe bi nga taxaw ci jëf ak wax maanaa jëf ak wax bul jëf bul wax lu may danga xam miizaanahu alal kitaab wa sunna la ca jëf ju mën a doon nang ca xam la ca alquran wax ak sunna wax ju mën a doon tamit kadalika bala ngay wax dara mbaa ngi jëf dara na nga xam la ca alquran wax ak sunna daal di jël waxi borom bi subhaanahu wa taala afwa wa amur bil urfi dikk na ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam penc du taxaw mukk lu may sunna daa mujj soppaliku biddaa laa taqumu saatu xatta tasira sunnatu biddaatan sunna du taxaw lu may maanaam bis penc du taxaw lu may li ñuy wax sunna day mujj soppaliku biddaa ba duutoo gis kuy jëfe sunna ba boobu boo bàyyee biddaa sax nit ñi dañ naan bàyyi nga sunna ngir biddaa bari gum bari moo tax salafu saalix sëñ Tuubaa nee na salafu saalix ridwanullahi taala alayhim daanañ soññ nit ñi rawatina seeni saxaaba seeni àndandoo daanañ leen soññ ci tënk leen ci taqyid leen tënk leen ci alquran ak sunna ak moytandiku biddaa ñuy taral loolu ci ñoom ba amirul muminin omar ibnul xataab radiallahu anhu léegi-léegi da daan doggu ci da daan digle mbir ba pare dogu ca nit ñi wax ko ne ko yow lii ngay digle di ci dogu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mosu koo def mosu koo digle su ko defee Seydina Omar ak ragal yàlla ga da cee dellu ginnaaw day bàyyi dogu gam ca dogoon te dellu ca ginnaaw sëñ Tuubaa nee na yow mbokk mu tedd mi maa ngi lay digal nga topp sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mboolem say jëf ak say wax ak say pas-pas say gëm-gëm bul jëf menn mbir lu may ne dangaa xam la ci alquran wax ak la ci sunna wax maa ngi lay dénk sellal li ñuy wax ixlaas nee na ñu dañu ko ixlaas mooy lan ko tedd ki mooy génnuk mbindeef mi ci jëf sëñ Tuubaa nee na wax ba mu nu daana wax ne man talaba bi amali axirati nakasa qalbahu wa kataba ismu fi diwaani ahli nnaar nee na képp ku sàkku àdduna ci jëfi àllaaxira jëfi àllaaxira mu sàkku ci àdduna sun borom dana safaane ab xolam te dana bind aw turam ci diwaanu waa sawara dana bind turam ci téere waa sawara wala yaadu billah sayduna isa alayhi salaatu salaam daana wax ne ku jëfe lam xam walliwu walliwu wér la maanaam walliw la ci walliw suñ borom yi seyduna sufiyaanu sawri radiallahu anhu mas naa wax doomam ne ko yow sama doom bul jàng benn xam-xam lu may dangay yéene jëfe xam-xam ba budul lolu su fekke ya ngi jang ben xam xam tiini wu ko jefe bala lay don الله أكبر يا بني لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة نرغل يلا لنيون مدوخنا يحيى ابن معاذ رضي الله عنه سنت بانينا دنجو لاج نكو متى يكون العبد مخلصا فقال اذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه او ضمه نينا يحيى بن معاذ دنجو لاج رضي الله عنه نكو kañ la jaam bi di nekk ku sellal lay lekk muxlis nekk am ixlaas nee na mu ne su fekkee jikkoom dem na bay niroog jikkoy liir buy nàmp nga xam ne du faale ku ko tàgg du faale ku ko ŋàññ loolu nag yaakaar na mbokk yi daraja ju maanaam daraja ju ju jafe àgg la dem ba xëmmeewu ku lay tàgg ku lay ŋàññ moo tax Fudayl ibnul Ayyaad góor yàlla googu sëñ Tuubaa nee na Fudayl ibnul Ayyaad boo ko xamut dañ ne ab agresseur la woon dafa yëg ci tappaatu sengub borom kër xotti ko cëppilu ci digg ëtt bi fekk benn silmaxa genn góor toog doomam mu bëgg ko agressé mu ni ko xanaa xalaatoo yàlla sunu borom subhaanahu wa taala la may kàttan waaru ko fa ca la tuubé delu jajju bàyyi mbolam lum doon def muy agressé ak def lu bon soobu tasawuf ñaari at mbolo mu dul jeex top ko moom lum nul Iyaad mi sëñ Tuubaa nee na lum nul Iyaad mas wax ne ma dama al abdu bin fala yuslimu min arriyaai nee na li fi jaam baa ngi ko doomu adamay yi du mucc ci ngistal mukk ci aduna foko fekk mi ci garam place yi di wax lu ñorog lu ñorut kenn mënta fexe ba mucc ci ngistal foo ko fekk day ngistal moom Sëñ Tuubaa daana wax ne yow taalibi bi usika bi tawakkuli wala tatahamma rabbaka fi rizqi daana wax ne maa ngi lay dénk wakkilu ci sunu borom bu la wërsëgu sunu borom itteel maanaam na nga wakkiilu rek boo ko defee rek sunu borom dana la jox dana la jox loo dunde daana wax ne maa ngi lay dénk ci góor góorlu ci tudd yàlla di zikkar tur yàlla foo toll ak di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko sàggane ñaar yooyu bu ko mukk zikkar tur ak di julli ci yonent bi foo toll yow taalibe murit bi nang ca sax bul sàggane ñaar yooyu ci bépp jataay boo xam ne toog nga ca na nga ca sikkar tur yàlla lum néew néew tudd julli ci yonent bi ndax Sëñ Tuubaa nee dikk ni ci xadis yonent bi ne laa yajlisu qawmun majlisan lam yadkuru llaha fihi wa lam yusallu ala nabiyin muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam illa kaana alayhim turaatun ay tabiatun wa nuqsan yowma alqiyaamati Sëñ Tuubaa nee na amul nit ñoo xam ne danañ toog ci benn jataay tudd ñu fa yàlla ba jóg julliwuñ ci bi ba jóg lu may ëllëg yow man xiyam loolu ak wàññiku lay doon ci ñoom bu leen topp ba yow te ëllëg faaw ñu rëcc ko moo tax daana wax ne waxi ibrahim ibnu Adham jum da netti nan ibrahim ibnu Adham, daana sart ci kep ku bëgg tok ak mom kep ku bëgg jotaay jataayoo ak moom daana sart ci yow nga baña sagane sàggane tur yàlla maanaam diirub ngay tok ak mom faw nga faw ngay tudd yalla kana wa qad kana ibrahim ibn adham radiyallahu ta'ala anhu yas yastaritu ala man yuridu mujalasatahu an laa yagfala an dikrillahi taala moo tax ata ata sulami daana wax ne yëllut ci koo xam ne daa tooñ boppam daa def bàkkaar ciy tudd yàlla lu may ci ginnaaw ba mu tuubee jéggulu yàlla ba pare ndax sunu borom subhaanahu wa taala day rëbbu aji tooñ su fekkee tudd na yàlla maanaam li fee nuuru ca bàkkaar ba maanaam li ñu bëgg mooy mu tuub def istixfaar ba pare door a commencé di dékkar loolu lañ gën a bëgg ci moom sëñ Tuubaa nee na maa ngi lay dénk yow taalibe bi ngay sàkk lu lew te boo amee lu lew bul yàq usiika bi talabil xalaali wa in wajadtahu fala takun musrifa maa ngi lay dénk ngay sàkk lew foo mën a toll te boo amee lu lew bul ko yàq ndax salafu saalix kat daa jiital fàggu dërëm bu lew ci mboolem yi ñuy def yépp ndax nee na ki nga xam ne dafa lekk lu xaraam jëf ju xaraam rek lay jëf képp kuy dunde lu xaraam lu xaraam rek ngay jëf mënoo jëf lu baax kuy lekk lënt lu lënt ngay jëf mënoo jëf jëf ju set ba ci ki nga xam ne day dunde lu xaraam alal ju aram su bëggoon a topp yàlla da koy jafe lool du mën a topp yàlla du mën a jaamu yàlla moo tax ibnu abbas radiallahu anhuma day wax ne fàggu lew ci jullit bi moo gën a diis tuxal aw montagne fàggu lu lew lu jafe la ndax jamono ji daa toll fa yonent bi doon wax soo lekkul riba tamit noyyi ci pënd bi moo tax ibrahima ibnu adam ne daana wax ne gis naa jaam boo xam ne day taxaw di julli waaye day dis lol waaye buma gëstoy gëstooy mbiram day dundé lu haram mu wóor ne julli mom ko def say cër dis ngay tayel ne la wóor ne suux yi nekk sa yaram amna ci yo xam manam alal ja baxut riba la maanaam dërëm ba nang ko amé mo lewut motax mu ne gis na ko xam day julli yaram wi dis lol waaye buma gëstoy mbiram rek lu bon lay manam lu lu euh, maanaam lu baaxut lay dunde maanaam alal ji muy dunde nam koy fàggoo ci trian la koy jële wala jaay lu bon ak nangam ak nangam waaye doonul alal ju lew jullit mën a lekk mu ne su fekkoon day lekk lu dagan wóor na mu ne ay cëram du diise noonu sëñ Tuubaa ne maa ngi lay dénk yow taalibe bi nga moytu juróom-ñaar yi nga xam ne day wowal xol juróom-ñaar yi nga xam ne day wowal xol ndax ti bi alayhi salaatu wasalaam daane lem biiram ay bés ak i guddi takk biiram ak xeeri sew ngirub xiif ngirub xiif takk biir bi ba mu dëgër ngirub xiif moo tax solo nañ jële ci yonent bi alayhi salaam daana wax ne bu leen rey seeni xol ci lekk gu bari ak naan gu bari laa tumilul quluba bi kathrati taami wa sharabi ku nu bëgg la moom alayhi salaatu wasalaam daana wax ne bu leen rey seeni xol ci lekk gu bari ak naan gu bari ndax ab xolkat fa inna al qalba yamuutu ka zarci ida ndax ab xolkat day dee comme ni am mbay di deewee su fekkee ndox dajaa bari gàncax am na ci yoo xam ne boo ko roosee ba mu lab ndox mu bari bi day dem ba rey gàncax gi kon loolu ay dénkaan la yoo xam ne Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim dawut dañ diko dénk talibi don denkan yo xamne mi ngi ci majmuat majmu hikmat cheikh al khadim bi nga xamne cheikh abdul ahad mbake moko dajale mu melne kon mourid bi fum tollu war nay gor gorlu ci jema dundelu lew ci jema a lu lew bañ a dunde lu xaram ndax yonent bi alayhi salaatu salaam fekk na benn waay toog tàllal ay loxoom jublu penku di ñaan ñaan gu metti yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko wa ana yustajabu ilayk mu la sunu borom di wuyoo sa ñaan gi yàlla du ko nangu koo xam ne maakuluhu xaramun wa malbasuhu xaramun wa mat'amuhu xaramun wa mashrabu xaram wa ana yustajabu ilayk koo xam ne li muy lekk dafa xaram yére yi muy sol alal ju araam la koy jënde oto yu rafet yi muy war alal ju araam la koy jënde kër gu rafet gi mu tabax alal ju araam la ko la ko la jënde soxna si mu takk alal ju araam la ko cane dépense bi muy jox ci këram day péemi day liggéey ci lu lewut dafay leb banque di commerce di jël dërëm boobu di ko joxe dépense di ci lekk ak njabootam di ci lekk loole mënta ànd ak mooy bari na gàññi koo xam ne doomam dafay màgg dëng lool gën a dëng ci xale yi mu jamonoonteel te du xam lu ko waral daf koy dunde lu le daf koy dundale lu lewut boo piimee fexeel ba bu ci joxe dépense boo demee ci marché bi di jaay ak jënd di trian ba am ba am alal alal jooju fexeel ba bu ci dundal sa njaboot ndax arab yi dañuy wax ne mutasawif yi dañuy wax ne al luqmatu hiya xot xutbu tibb ñam bi nit ki di tibb di ko dugal ci gémmiñam moo koy conditionné bu tibb bi baaxee lu baax rek lay jëf li muy lekk bu baaxee lu baax rek lay jëf li muy lekk bu bonee lu bon rek lay jëf kon loolu jaa jullit bu nekk war nga cee bàyyee xel jullit bu nekk war ngaa bàyyee xel ci li ngay dundale sa njaboot mu mel ne danoo toll ci jamono joo xam ne nag comme ni ma koy waxoon riba moom lu jafe segg la fi mu toll ndax boo xoolee Touba ak li ko wër da nga gis banque yi fees dell dell pamekaasa yu kenn xamut banque yahud yoo xam ne ab jullit waru ca lépp ndax lépp ci intérêt lañ koy la lañ koy defee lépp ci intérêt lañ koy defee ndax sa xaalis ba nga fa dénkaane moom la ñuy lebalewaat buñ ko lebalee ñiñ ko lebal ñu tegal leen pourcentage ñu fay leen pourcentage bu ñu coppati ci booy jëlaat sa alal ji nga fi denc ñu joxaat la ca waaye buñ la joxee bu ko lekk jëlal la capital ba nga dénkaane woon lañ la jox nga saraxe ko jëlal capital ba lañ la jox ci maanaam ab neexal ak yu mel noonu nga saraxe ko mu mel ne riba lu jafe mucc la ci sunu jamono ji ñu ne foo dem majaal boo dem nag da fa fekk riba ba société riba yi sax maanaam lu mel ni ay banque ak ay ay PME ak yooyu yëpp ca cosaan jullit waru ci woon a liggéey jullit waru ci woon a liggéey waaye dem nañ ba fi mu toll mu mel ni dafa mënta ñàkk ndax Cheikh Al Hadj waxoon na ko ca Kifaayatu Raaxibiin bañ ko ko laajee bànk yi nag mu ne Sufyaanu Sawri yi nee na woon jamono ngi ñëw ci kanam ku ne alal ju lew rek lay dunde du ma dunde dara lu lew da nga dee ko xiif da wër ba sonn doo gis lu lew ku ne sëriñ bu mat sëriñ rek lay àndal da nga wër ba sonn doo gis sëriñ mat sëriñ ku ne xarit bu dëggu rek lay àndal da nga wër ba sonn doo gis xarit bu dëggu yooyu dafa mel ni luy waaj a jeex ci jamono ribbaa ji nag la yonent bi waxoon ne mujjug jamono ku lekkul ribbaa nooyi ci pënd bi ca lañ agsi fi mu toll ba ci téléphone yi ñu ñu utiliser téléphone yi Tigo Orange ak yooyu lépp bi ngay lépp ci Tigo Orange riba la riba na si la ndaxte leb la bor la boo xam ne ki la koy lebal da ca am intérêt ndaxte booy leb su dee ci Tigo boo lebee cent franc wala boo lebee deux cent cent quatre lañ lay fay lañ la cent quatre vingt lañ lay jox boo jëndee crédit ñu ne la bés at ak dat sàngam boo ko wóotiwut dañ koy dagg loolu riba la baaxut suñ la mayee bonus appal la dat buñ koy dagg maye nangu amut ci lislaam lislaam luñ dañ luñ la may rek yaa ko moom kenn sañatu ko nangu waaye loolu li nu ko teg nag mooy sunu société bi jéemunu dara ci di maanaam sunu societé bi dañuy jëggaani jëf joo xam ne ca tubaab yi lañ ko jëlee te buñ dikkee dañ ko islamisé dañu xool ñi taxasus ñi ñi nga xam ne dañu spécialiste ci l'islam ñu laaj leen ko et dañu koy jël rek dugal ko ci société bi nga xam ne yow lépp loolu lépp li ko waral mooy pays laïque bi dawla albaniya lu faslu bayna diin wa dawla jël diine teg ko ca jàkka ja ak ca kër ga ne ko sa yoon nekkut ci état ma nga jëkk xewe ca turki ña daaneel état islamique ba taxawal loolu yàlla na yàlla rëbb kon nga xam ne loolu sunu système bi yàlla nu yàlla dimbali ba nu jóge ci moo tax képp kuy imaam di wax ci diine wala ngay kilifa ak diine war ngaa jóg ngir xeex ko damay wax ni kilifa yi diine yi ñi ngànk diine politique daa jot ci ñoom dañoo war a changer politique bi ñu yor politique bi fi xew dañ ko war a changer maanaam jóg jël réew mi jëlal ko seen bopp segg mboolem lu baaxut lu dëppoot ak lislaam ci réew mi teg ko ne le indi xalaati lislaam ndax lislaam képp a mën a gouverner moom dong nga mën a gouverner kon mbokki jullit mbokki taalibe yi foofu la ñuy yamale sunu émission dafa mel ni waxtu wi mi ngi ñu dab di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sunu mbokk yi nu doon déglu ndax déglu moom ñi la koy def ñu la ëpp xam-xam fuuf gën laa xam li ngay wax déglu ñu ñu nag njuumte lu ci am ñu ngi leen koy jégglu ak ci ki ci xamul dara ki nga xam ne xamul dara moom day déglu rek ak ki nga xamne ne moma tollo yaak moma yam ñoo ñu ñu ngi leen di jégglu bépp te buñ ci dégg di xamne ne maanaam dara taxuñoo jóg lu dul léral ak défar comme que société bi ñoko bok kenn ku ne amna droit wax ci in uridu illa al islah, mastataatu wa ma tawfiq illa billah di wax ni lu jup ci kaddu ci sunu borom subhanahu wa taala way lu ci deung sunu ñàkk xam-xam la ak sunu gàtt fasaaxa di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh